3S Pro. jërëjëf mbokk yi internet seen lamb TV mbokk yi mbégte la waat ak contentement mbokk yi ñu jàkkaarloo te yéen tey nag le 27 août 2023 fin de saison mbokk yi tey ñu nekk fi arène nationale kan moo ñu foo Ibou production mbokk bu boole ñaari ndaanaan ñaari champion mbokk yi nee naa la moment bi ñuy wax ak stade bi instant yi mi ngi yëngu moment bi ñuy wax ak yéen Youssou Ndour mi ngi yëngal benn côté gi waaye Mor Kang Kang aussi mi ngi yëngal benn côté gi rawatina combat yi nga ay combat spécial la loolu yëpp tey ji fii si arène nationale yaakaar naa Ibou comme nu leen ko diggee woon tey loolu la leen defal y'a beaucoup d'ambiance aussi tamit y'a est-ce que ñoo yegg confiance wala nekk ñoo confiance xool Youssou Ndour ak ci meekaayam xool ñu mu àndal est-ce que ñoo yegg confiance wala nekk ñoo confiance mbokk ñu jël loolu yëpp ak seen lamb TV mbokk ñu indil leen ka fii mooy seen lamb ñu daw xooli Mor Kang Kang daal di ñëwaat ñu xooli Mor Kang Kang ci meekaayam daal di ñëwaat ñu def ngi noonu macha allah Mor Kang Kang ngi noonu ànd ak la grand ménagère Père Sourou Fall macha allah moom tamit ñu xool kari du mu mobiliser stade ñii ñëpp tey xale yëpp tey waa waa Grand Dakar la. waa Colobane la Mor Kang Kang moo indi xale bee ngi nii bëri na lu toll ak 11 combats musul dëgg muñal tey mu war a bëri li nga xamante ne mooy douzième combat moom Mor Kang Kang ndaanaan la champion la bu mu ñëwee si làmba ñu bëri gëmuñu ko woon waaye gëm-gëmam mag fulam tey moo ko indi tey fi mu egg muy ndaanaan di bañkat mën a bëri loolu waa Bawol yaakaar ko na koñ bi mu dëkk foofu nga xamante ne mooy Colobane ndaanaan la champion la ma xale bi Kalidou xoolal ma ko si si kaw boo ko xool am na lu muy lekk loolu daa mel ne wogga la wogga bu bi démb pël bu rafet moom la Mor Kankang di lekk noonu gars yi tegal nañ ci butéel bi mu daal di toog xale bee ngi nii macha allah il est prêt physiquement il est prêt moralement il est prêt mentalement il est prêt. dernière décision bi nag suñu borom moo koy am moog Youssou Ndour ku daan ku ne làmb ji génnul Sénégal ay doomi ndey nañu te ñoo mën may de xaalis ñoom ñaa ñëpp ay champion nañu ñoom ñaa ñëpp ay ndaanan nañu nga xale bi tey kaw ba suuf xam ni Mor Kankang mii làmb ji bëgg na ko. moo tënkak mi nga xool boo ko xoolee Kalidou xam ne làmb ji soxla na ko nga xool ci mekkaay bi ñu ko boot nga xam ne ay ndaanaan ñoo ko boot macha allah dañuy jóge si Mor Kang Kang daw xool Youssou Ndour Kalidou combat bi bu ko Mor Kang Kang daanee est-ce am fu mu koy jëmee da ngay si gànnaay yi ponkal yi bu Mor Kang Kang daanee Youssou Ndour mbër mëntu ko bañ si làmba Kalidou Mor Kang tey bu daanee Youssou Ndour ñu bëri dañ doon surprise si ñoom waaye ku xam làmb te yàgg dund làmb mën na bañ doon surprise si yow boo ko xoolee wogg lay lekk noonu nii nul li muy lekk nii bu baax bi dugub bi la wogg xam nga wogg maanaam boo tayee cere ba kaay tekki ko si ki indi kii bi leket bi genre wogg yooyu moom la Mor Kang Kang te indi tey di ko lekk macha allah ñoom xool Youssou Ndour daal di ñëwaat. daal bee ngi nii Kalidou xale Grand Dakar bee ngi nii kii mooy Cikiri ñëwal nii. manaay ko manaay ko. xaysaara xaysaara tey maray laa. bee ngi nii Cikiri Adja Père nee na xasee na ci kii di. l'enfant chéri de Grand Dakar. naan na la nga ba bàyyi xel moom tamit Kalidou. ñu daw xool Youssou. acca mi ngi noonu. Euh, Kalidou ñu jógee si Mor Kankang. daw xool Youssou Ndour ak ci mekkaayam. xool ñu ko dar. gis naa fa ay fils de Balla ndaanaan yi. acca mbokk yi tey nee naa la tey jii. Ibou production dafa làmb. mbokk yi nee naa la tey jii. làmb tey ngay gis lu garaaw. lamb tey ji mbokk yéeme tey ngay gis lu ko raw tey bi diggante Youssou Ndour ak Mor Kang ñoom ñaar <laughs> maa ngi ñëw si xool ma ci mekkaay bi jëlal ma xale ya nga xool ci mekkaay bi macha allah sëriñ Mor bu sëñ Babacar moo toog ne sol jàllaa bi rouge bi macha allah nga xool ñoom dugaar ñoom dugaar pël ndaanaan yëpp ngi ñu toog ànd ak seen frère seen sen seen champion Youssou Youssou Ndour moment bi may wax ak yow mi si géew bi am na lu muy suufugee waaye combat spécial de la soirée Anaconda moo koy bëre xale parcelle bi moo koy bëre mooy bëre grand combat bi doom nday maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Diallo ziar. sant alhamdulilah. tey noo ñëwee. Ah, dal rek. le moral est bon. noo doy nii bu yàgg. noo gisee la bëree tey xeex wala bëree daan dem. waaw incha allah si kanam tuuti lu si kanam rawul bëri incha allah. ñu première cinq minutes moom bu bu rombee rek lépp lu ne si combat moom moo koy def. waaw yàlla baax na ci kanam yaroo lu bët mais doo woo moom ñu ngi ñaan yàlla suturam ñu la ñemee lan la ñu ngi ñaan yàlla suturam mu dala suur si kay dala suur si waaw li am tey la billahi yow jaajëf aja mi ngi noonu ñu ñëw ba léegi ñu xool Lamine Golo Fils de Balla am na benn kan bu mu yor si loxo bi moom Fils de Balla Lamine Golo ngi noonu Lamine Faye ngi noonu ay biritel la yor wala lan la yor nii Lamine Faye li mu yor si loxo bi Lamine Golo lan la yor si loxo bi nii biritel ak tàndarama kaalidu lu saf suukar la nga xool xale yi ñi la Youssou Ndour indi tey jëlee ma kaw tribune bi nga xoolal ma Youssou ñu mu indi Kalidou xale bi nga xam ne moom tamit macha allah il est prêt tey dafa ñëw di kaf di waxtaan ak arbitre yi waaye du ruube ñi nga xamante ni mooy supporteru Mor Kang Kang yi lii mooy làmb Kalidou c'est l'espoir ki gagne lii mooy làmb foo la kaf agréé waaye tey saraxu ndox mi bëri na. Youssou Ndour la ñuy ndox rek côté Waalo la dëkk moo tax. sëriñ Alaaji ndigal bu baax bee ko seexee. Alaaji ndigal mooy seere ndox mi ndax daa ndox moom ndigal. jëlal ma Youssou mi ngi noonu am na lu mu waxoon rek Malick Ngom ba daal di dellusiwaat talal loxo ba moom Youssou Ndour eh, xale bi il est prêt dëggal loolu loolay alaan duuti ndeysaan jël kaak Lamine Faye am lu ñuy wax ñoom ñaar. am na lu ko li muy fay di wax de. ci alliance bi damay noonu moo war bëre combat spécial de la soirée tey mbokk yi fii si arène nationale. suñu la tey xale yi ñoo war tëj saison bi tey xale yi ku si daan ku nekk si ñoom sa màggal a neex jël na année Konda léegi léegi mënu ma tey lépp lu xew si combat moo koy def Kalidou waaye boo xoolee xale bi moom tamit il est prêt macha allah liggéey na de am na lu mu ko jox raxas na si loxo yi. raxastaat bu mu mekk ñetti yoon waaji tañ na burte bi waa ji tëj na burte bi tëj na gurte bi moom waa ji ndeysaan alliance bi reme ngi noonu cey bi combat mais Kalidou aujourd'hui ça va chauffer di nga gis lu yéeme ndeysaan a ah, aña ko añ naa dama lekk pom ak banaana lu bëri aca mi ngi noonu <laughs> pom ak banaana nga lekk saraxu mbëri nga topp Kalidou voilà lekk moom nelaw rek. lekk ba suur nelaw ba la suur <laughs> ndeysaan Awa Diop bu Touba Mbacké Awa Diop ñu lay ñaanal yal na yàlla suñu borom yoral tànk bi Awa Diop euh, borom Touba Mbacké tey ñoo ngi fi arène nationale mbokk yi alliance bi am na lu mu jël xorom la wala lan la euh, daal di ko sànni si kanamam te leket bi noonu moom alliance bi doom ànd ak ay copainam cay bii combat fii la mujjee moom alliance bi doom bu leen fàtte loolu mbokk yi Anaconda fii la mujjee bu leen fàtte loolu. alliance a ngi noonu kari ñu dem trois espoirs